ñu di werante ci seen xel naan kii kan la ba sañe wax lii mu ngi sosal yàlla ana ku mën a baale bàkkaar yi ku dul yàlla dong waaye yeesu yëg ci xelam li ñuy werante ci seen biir ni leen lu tax ngeen di werante nii ci seen xel lan moo gën a yomb ma wax ku làgg ki baal nañu la say bàkkaar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 fekk jaaduwul kenn lekk ko ku dul saraxalekat yéesu dellu ne leen yàlla sàkkul nit ngir bésu noflaay bi waaye sàkk na bésu noflaay ngir nit noonu doomu nit ki mooy boroom bésu noflaay bi